ni ma ko ñi ma jiitu waxee le 14 woote nañu rassemblement bu yeewi askan wi lañ ca bëgg nag du méga meeting daat ciy def benn Kër Massar mu mel ni dafa xaw a yëngal yuuru gaa yi boobu léegi ñuy daw ne ñoom it dañuy def ay méga xam naa liñ ci def ci ay millions wala ay milliards war naa bëri ndax koo xam ne mënoo woon nit ba mu jëw ci coobareem lu dul faw rek nga génne xaalis bu bëri pour xale yi doon ut paasu mbàkke ñëw wuyu si la ñu ne nag léegi bàyyi nañ leen ak méga ñun giga meeting la ñu bëgg a def moo tax ñu ciy woo sénégalais yëpp nag à suñuy partisans ñun ñi ñëpp kenn ku ne ci sa parti politique suñuy sympathisant waaye bépp sénégalais boo xam ne situation réew mi jaaxal na la dama gëm ni mooy daanaka sénégalais yépp ñu daje fa ci li ñu tuddee giga meeting ndax aw askan mooy fajal boppam mbéju kanamam aw askan mooy jël destin am en main aw askan mooy won boppam waaye won àdduna bi ni am na dignité am na maturité waaye am na détermination ba li nga xam ne constitution jox na ko ko muy souveraineté mu mun koo exprimer te loolu dafa am nuñ ko ci wonee mooy ñaare nit ñi wootewuñu dañuy dem defi coup d'état pour daaneel ki fi ne wootewuñu guerre civile waaye constitution ci boppam moo ne ku am lu la neexul am nga sañ-sañu wone ko te bokk na ci niñ koy wane mooy dajaloo fenn nu daje bi gën a yaatoo rek muy gën a doon mandarga ci ñi jor ñëw mi waaye ci àdduna yépp ndax àdduna dañuy suivre keroog meetingu Kër Massar bi àdduna yépp a ko suivre télévision àdduna yépp a ko wone ñépp xam ni sénégalais yi nag la ci ëpp bokk gëm nañ ni lii échantillon rek la ci waaye d'accord ñu ak nii Macky Sall yore réew mi moo tax bu ñuy woote dafa am solo léeg nga woote mu am sénégalais yoo xam ne ànd nañoo ak yow sax mais dañ koy neenal ndax jàpp nañ ni garaawut toog fi ñu toog naan seen attaaya wala nekk ci yeneen loolu dooleel Macky Sall la waaye wàññi doole opposition bi la yàgg naa wax ni bis bu ñu dajalee 500000 personnes ñu daje fii lancé Macky message bu leer nañ gëm naa ni lu mu doon def lu mu sañoon benn dina ko xoolaat ci genn wàll moo tax ñu ne daje boobu dafa am solo giga lañu bëgg boo xam ne képp koo xam ne la ñuy wax ñun bokk na ak li nga gëm na fexe ba yeewi ku ci bés boobu ñu daje